la sunu borom di leeral mm-hmm. ne yaa ayyuha alladina amanu mm-hmm. ñun ñii la mm-hmm. kutiba farataaleef na aleykum ci jullit ñi lan lañu farataal ci yéen asiyaamu woor weeru koor kama kutiba comme naka lañu ko farataalee woon ala alladina ci kaw gaa yi nga xam ne min qablikum ñoo leen fi jiitu woon ci ay xeet mm. yahudi yi mm. farataalan nañ ci ñoom koor de mm. mujj gi ñu bàyyi ko fa di yal bandi di woor benn fan te mooy ba yàlla musalee musalee ci bandi ba Firawna dégg nga wax bu fekkee nasaraan yi fanweeri fan la woon lañu ñu amoon donte façon bi ñu koy defee mën na wuute waaye fanweeri fan la woon seen fóore yi mm. ñu dem ba jamonoy tàngoor mm. koor ga tiet ak tàngoor ñu ne nañ puus mm. ba jamonoy sedd su ko defee comme tardeel nañ ko ñu dolli fukki fan tiir yi tegaat nañ ci ne ñu demaat ba beneen jamono ka nga xam ne moo nekkoon kilifa ga ci boo jëlee jamono maanaam xalifa ba ci boo jëlee jamono feebar dara ko ah mu ni seen bu mu wéree ci sama feebar bi naa woor nangami fan masalan juróomi fan am keneen kum dalaat kooku fa wuutu mm-hmm. mu def juróomi fan loolu moo indi juróom fukki fan yi ñenn ñu wax ñeent fukki fan mm-hmm. waaye mm-hmm. yàlla waxu leen woon lool de ñoom ñooy def lool de gis loolu yàlla lim ñagee aay ji ndax la yéen tattaquna ngeen wattandiku ba bañ kaa soppi comme ñi leen ci jiitu nañ ko soppee woon am na tafsir ko firee noonu au lieu que ragal nga yàlla seen nga ndax boo ragalee yàlla yaa ngi wattu te wattu mooy ragal yàlla mu wattandiku ñoom nañ ko soppi woon laalakum ndax la yéen na ngeen wattandikoo bañ kaa soppi comme ñële nañ ko soppee woon mm-hmm. am na téere yu ko firee noonu nag soo dégg ko koy firee noonu bu mu la jaaxal mm-hmm. wa ah waaw mm-hmm. jeex na ba xam nga ñun fanweeri fan la wala ñaar fukk juróom-ñeent suñu borom nag nee na buñ ko yóbbu nañ ko bàyyi fi ko bàyyi rek buñ yokk buñ wàññi su laajee fanweer dañ def fanweer su laajee ñeen fu ñaar fukk juróom-ñeent ñu def ñaar fukk juróom-ñeent rek nañ ko bàyyi ko bu mu yéeg bu mu wàcc waaye di yéegal baar bi ak wàcce baar bi moom ah suñu borom wattandiku loolu ñu ko lii ma ngoog la'allakum tattaqun pour ngeen jëlee ci ak wattandiku wala ak ragal yàlla ndax ragal yàlla mooy wattandiku rek dégg koor ay ay fan la maadudaatin yun mën a wàññi yu gàtt lool moom xanaa ñàkk agsi Mm. waaye bu àggsee léegi ne si man dara affaire bi moo gaaw ñun kañ lañ fi ko war a kan la ñuy wari mm. ay yaama maadudaat fan yu néew a néew la sax mm. fa man kaana képp koo xam ne nekk na nag borom bi di indi yoo xam ne bu leen ci gaare yoon ba tey wàcc na leen koor gi fa man kaana képp koo xam ne nekk min minkum ci yéen ci jamono bu weeru koor teewee mari dan di aji feebar feebar na feebar boo xam ne munu kaa boole ak koor ngir koor gi day yokku feebar bi wala day tax mu yéex a wér mm-hmm. wala mënu ko boole daal mm-hmm. am na solution kañ dem mm-hmm. awala safari wala muy tukki tukki distance wàññi nag la ñu wax distance boo xam ne ku ci doon tukki ci masa bu Maalik ci gàttal ah da am juróom-ñett fukki kilomètre wala juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ñeent fukki mil yi ngay jàng loolu la ci ri mujj yi loolu lañ ko joxalee kon soo déggee ku lay wax loola mm-hmm. moom la jaaxal mm-hmm. ndax dañ ne miil moo ëpp kilomètre mm-hmm. xaman nga loolu baax kay ma nga boo xoolee dawalee sa bët daa ko gis kon distance day dàqu kay téere yi ma mujjee gis ci ma sama wàll di ñu fay nettale nga xam dañ ko nettale nii nee ñu mooy juróom-ñett fukki kilomètre ñenn ñu wax juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett kon daanaka rek juróom-ñett fukki kilomètre yi moom àgg na fa ñeent fukk ak juróom-ñett yooyu. Mm-hmm. ne dañ ne soo ko tàllalee lool la la jox ci ay kilomètres. Mm-hmm. ndax 1000 mu ëpp kilomètres. Mm-hmm. seet nga ko wax. waaw sooy tukki distance bu mel noonu nag. coono bu mel noonu. sama borom ne wàññil naa la ko. fa man kaa ne ah, ah, ah, fa war na ca kooka. dog ngir feebar. war na ca ka tukki. ngir feebar. iddatu ab lim mm-hmm. min ayaamin uxar mm-hmm. ci yeneen fan yoo xam ne mm-hmm. su demee ba wér wala su demee ba delsi ba koor gi jeex mu fay ko da nga wax baax waala ladina war na ci gaa yi nga xam ne dog war na ci gaa yi nga xam ne yutiquuna ah amuñu ko kattanal woor ngir mage dañ fi nettalee laa yutiquuna am ñu ne dañuy des ko fi nattale waaye lu mën di ak xew mm-hmm. aaj ah, bu fekkee ne defoo nattale fi laa mm-hmm. bu baay day follikuwaat léegi rek mm-hmm. li ngay folli fa man shahida minkum shahra falyasumhu yekkay folli dégg nga wax bu fekkee da nga fee nattale laa nag mooy war na ci gaa yi nga xam ne laa yutiquunahu amuñu kàttanal woor ngir mage gu nekk ci ñoom màggat nañu wala feebar mi ngi ci ñoom te yaakaaruñu feebar bi wér mm-hmm. feebar boo xam ne nag du yaaka kere du yaaka tappale comme yi xew léeg-léeg mm-hmm. war na ci ñoom lan ma war ci ñoom fideetu mm-hmm. fideetu taa fideetu njot njot ngay joxe lii baru ceeb ngoon gu jot ki nga xam ne dafa feebar boo xam ne yaakaaru mu dafa màggat a màggat ba bu tabarakallahu bu wóore mu jur koy jafe-jafe ñooñu war nañuy def ngoon gu ñu joxe lii ceeb bu la neexee itam nga tax ñu ndóor lépp liibaru ceeb yëpp calcule ko joxandoor ko mu jeex léeg-léeg da gis ñoo xam ne dañ naan la ñu waroon a ndogo la ñuy jox la ñuy ndogo mën na bañ a mat lii bari ceeb loolu it ay ay ceeb kenn xamul la yéen daal la joxe te mudd bi mooy toll ceeb ci gàttal ndax ñeenti mudd yi boo xoolee presque mooy ñaari kilo ci li gën a limtu nga xam ne da nga gën a mën a génn ci sikki sàkk boo doon joxe asakay muuram koor loolu la ñaari kilo yi mooy li gën a limtu donte nag am na ñuy wax naan kilo ak liibar rek gën waa liibar parce que yaa ngi àgg ñaari kilo mm. kon soo defee la rek wàcc nga yow mm. te al al ihtiyaatu nag mm-hmm. mooy al min a shakki ila al yaqin mm-hmm. lu gën a lim mm-hmm. mooy nga jugee ci sikki sàkk dem ci lu wóor seet lu nga wax ok noonu la demee fidya boobu njëg boobu taamu masaakin mooy leelu miskin yi loo xam ne mënees na kaa lekk ceeb la dugub la yooyu ñuy jëfandikoo rek waaw kay noonu la aha fa man tatawaa képp ku coobarewu na xayran ci yiw fa huwa coobare wa googu de xayrun lahu moo gën ci moom woor nga ba pare tibb sa boolu ndogu maye sama borom nee na dal nga ci de xaw ma kan de waaye yow dal nga ci woor nga ba pare gàddu sa fukki dërëm mburu mm. saraxe ko mm. dal nga ci mm. ndax am nga saraxu yoolu ko saraxe ak yoolu ku woor seen bopp ma ngoog waaye wa an tasumu bu ngeen wooree nag xayrun lakum moo gën ngeen di dog ànd ak di joxe njal in kuntum taalamun ndegem xam ngeen lii may waxay la ne sahru ramadaana weeru koor wii ngeen nekk nii alladi mooy weer wa nga xam ne undi la wàcceef na fii ca weer wa alqur'aanu alqur'aan ci lañ ko wàcce mu bàyyi ko lawhul mahfuz ñëw ci asamaanu adduna bii ci guddik laylatul qadar am ñu ne ci lañ ko wàcce ci sayyiduna muhammad ci weeru koor la sayyidul haaji maalik si radiyallahu anhu waxoon fi fii chahril muazzami li abra wi sama daa isru min umami ci la fukki fan yaag juróom ñaar ci la wàcc yeneen téere itam yëpp it ñu ngi wàcc ci ci ci ci comme tawraat ak injiil ak yooyu yëpp ñu ngi wàcc weeru koor loolu yi nga dégg ko noonu kon weer la woo xam ne alquran ci lañ ko wàccee hudan moom alquran mbir moom muy aji ginde jubale orienté nit ñi li naa si nit ñi wa bayinaatin ak it muy ak leeral moom aaya yooyu minal hudaa ci njub di leeral nit def leen li bàyyi leen lii def leen lii bàyyi leen lii wal furqaan te it ak it mooy tàqale dëgg ak caaxaan dëgg ak lu dëgg ci alquran jooju rek nga ko mën a xamee suñu borom ne faman shahida képp ku fekke minkum ci yéen ashahra weer wa fal yasum na ko woor loolu nag nee ñu mi ngi man suuxal mm-hmm. loolu ma la waxoon léegi waa lasina yutiquunahu jooju mm-hmm. ñi am kàttan dañ ne woon ñi am kàttan bu fekkee dafa fa laaju mooy ñi am kàttan mm-hmm. su leen neexee ñu bañu a war ta joxe njot bu fekkee firiwoo laaji laa wax waaye aay ji moo ko fal fekkee da ngaa firi nag wàllu demee noonu wa man kaane ba waxaat ko képp koo xam ne nekk na gis nga yàlla bam ne fa man shahida minkum safaleesu mi ngi suuraale ñi feebar ndax dana ku ko fekkee rek mm-hmm. ñu feebar dañ koy fekkee de ñu tukki dañ koy fekkee mm-hmm. mooy leer laat yëf yi par benn yoon mm-hmm. ndax bañ nit ñi jaxale pédale rek koo xam ne nekk na maridan di aji feebar dégg nga ba tax mënul woor aw ala safarin wala mu nekk ci tukki distance wàññi ba mënul woor fa war na ci moom min ayaamin uxar yeneeni fan yu mu koy fay hmm. bu demee ba ngànt la hmm. na xool fan yam ci yore hmm. mu fay yooya xam nga yàlla moom ku baax ci doomu aadama yi la ndax mënoon naa wax ne rek ku ko fekkee ak nu mu mën di demee woorte da ngay feebar ak dangay ngay tëdd ak da nga sakat ak tàggoo nga sakat woor rek mu ne yàlla daal yuriidu namm na bi allahu sunu borom bikum ci yéen al yusra rek lu yomb rek mm. na mu gën a yombee ca moo ci yéen mm. noonu rek la koy jëflanteeg yéen mm. wala yuridu bëggul moom suñu borom ci yéen al usra jafeñ-jafeñ ndax bu ne woon ku feebar woor ku tukki woor ku nàngam nangam léeg-léeg nga dem ci barab yoo xam ne na muy tàngee ak na tukki bay méttee gi yoon wa na muy yàggee ah daa xam ne demal fu sore da nga xam secret secret dog leen bi wala nga feebar daa xam secret dog leen su la ci yooyu nag benn dalul nga yaakaar na ñii dog ngir loola ci caaxaan la ñu ne nekkuñ ci caaxaan de mm. su ko defee mm. wala tukmilu mm. ngir ngeen matal ala iddata fan yi weeru koor ga fan yi ngeen ci am su ngeen demee ba la leen daloon dañ ngeen matal fan yooya dégg nga baax wali ak pour ngeen màggal allah yàlla mooy si julli it gaag ya ngeen tey def ak yooyu mm-hmm. allahu akbar kabira yi xam nga bu koor gi jeexee mm-hmm. ah da nga julli it mm-hmm. dafa allahu akbar kabira walhamdulilahi kasira walzu kabirullah hmm? ala ma hadakum ci lim leen gindi orienté leen ci xippil ci seen bët xamal leen diine ba ngeen xam ko xam ni ngeen ciy tege seen tànk wala alakum ndax la taskuruun ngeen mën sant yàlla bu baax a baax arab yi mm-hmm. am ñu ñëw ne yàll ne yeneen bi ñun de dañuy ñaan yàlla mm-hmm. comme nag gisuñu ko mm-hmm. yaa ñu koy jàngal ñu koy ñaan dañuy wax waxinu ku jege lañu koy woowee walla waxinu ku sori borom bi dikk na matu ko maa leen gën a jege seen xol yi jege goo xam ne du jege ak distance jege lépp la kon nag wax leen ndànk rek dégg naa lépp ndax booba ay wàcc bees daf ci bëri mm-hmm. seen tawxiid yi des na mm-hmm. ñu ngi leen di raxas seetaguñu mm-hmm. yu ci bëree bëri rek tax ñu ko doon laajee noonu waaye boo demee ba ñor xom danga nga xam ne <laughs> kooku ni nit ba nga koy nattaleeg nit ñi dara ndax noo ko nattaleeg nit ñi rek wuute na ko moom suñu borom dégg nga wa ida saalaka ndegam laaj na la yow yeneen bi ibaadi sama jaam ñi an man yàlla ndax suñuy ñaan dañuy yuuxu mm. wala dañuy wax ndànk mm. buñ la laajee mm. ne fa indi man ca pàccori gi du borom bi xaribun aji jege laa leen lool ba fa jege yem bu am na yemukaay gis nga baatam boobu nakiraam googu de de dafa jege lool lool lool lool ba fa mm-hmm. mm-hmm. ujibu mm-hmm. dinaa wuyu man borom bi daawata daa yi woote aji woote ji ñaanub aji woote ji mm-hmm. ida daani mm-hmm. ndegam woo na ma wala ndegam ñaan na ma mm-hmm. su ma ñaanee daal la ma ñaane wala la may woowee dinaa ko ci wuyu kon nag fal yastajibu dañu jéem a wuyulu lii ñeel ma mooy dañ ma jéem a wuyu ci lan man yàlla ci def samay santaane bàyyi samay tere man ma wuyu leen ci ñaan gi ñu may ñaan mm-hmm. dañ ko jéem nag mm-hmm. def ci seen kéemtalaay kàttan mm-hmm. ku ñëw xam ne def seen ci seen kéemtalaay kàttan sooy ñaan yàlla nag la yéen a tudd rek ñaanal yàlla wa antum muqinuna bil ijaba am yaakaar gu ma sëkk kóolite gu ma yàlla moom dana nangu ñaan waaye nag ñaan yi dafa am yu koy tungoom bi ba ci njëkk moom lekk lu dagan ca la waaw waaye bu wekkee lekk gi dafa cuub kenn xamul li ngay lekk lan la ah, mën na jafe mën na sotti de waaye mën na jafe de wal yuminu mm-hmm. nanu gëm mm-hmm. bii ci man mm-hmm. ngëm gi ñu nekk buñ ci dengi dengi buñ murtat buñ arrière ca kanam rek laallahum ndax la ñoom yar su duuna ñu mën gindiku mën a xippi xam fi ñuy teg seen tànk aay yi ñuy waaj wax am na ñu ne mu ngi wàcc ci Seydina Omar ci njëlbeenu koor dañoo waxoon ni ngay wooree ci bëccëg bi ci soxna yi guddi gi it noonu ngay wooree ci ñoom guddi gi yépp dangay ngay woor kon diiru weeru koor bi daal dangay ngay woor bëccëg bi woor guddi gi ah lenn rek lañ la may nga lekk naan ci guddi gi bu jant sooyee ba keroog fajar di jot waaye soxna yi ñoom bu ñëwee yow nee ñoom na le waaw kay ma ngoog nii rek la ah, jigéen ñi comme ñoom ñoo ak seytaane dañoo jegante ah su jant yi soo rek ba ndogu jot baa nga ci dégg nga maam dernière rek laa si ñu ngay taal cuuraay yi ñu si jëlee góor ñi déggal ma lii rek ah baara ah. turki jàmm naa la wax la la la la bàyyi li waxoon de taa dugal du mooy bànqaas de mu ne bu yow mooy ab car <laughs> baara yooyu xam nga ci aslëf benn bu ne ak nu mu tudd am na Modou Lo am na nay métti ah yeeg yi yëpp bu ko waxee ñu taal ko ah boolekaag yañ koy gunge yëpp ah ñoom itam comme ay nit lañu lekk na naan nañ ñoom góor ñi hmm. ah ñooñu dal di fekk ci ci lañ leen woor hmm. ndege gaa yaa ngi nekk noonu nekk ci noonu nekk ci noonu ba bind bi Seydina Omar yi doon ah, bakkanam mën ko ci hmm. mu ñëw ne yonent bi de lakk naa dëkk beeg peccam ginnaaw yéen bi gal laala bant ngaa lakk mu ne laa waa la wax li man daal soxna si doxale ne démb noo xam ne daal wax dëgg yàlla mënatuma mënatuma mënatuma woon a maîtriser sama bopp ci moom ba xew xew na alxuraan dikk mm-hmm. ne waa léegi kon dee leen woor bëccëg guddi nag mm-hmm. yéene moom seen bopp mm-hmm. waaw guddi moom nu leen neex rek defe leen noona da wax leen neex rek defe leen noona ah saxaaba yu bëri nag li naaw ah yeneen bi de li war wax moom ah dafa ñu ëpp fit waaye ñun de wax dëgg yàlla man de soxna si def na ma ko ñaari yoon ki ñetti yoon kii naan ñeenti yoon kii naan ah man de xanaa kay man <laughs> yàlla ji comprendre rek waaye kay mooy loolu mm. moom kay ministre leeral lépp mm. yàlla waa kon baal naa leen lii mm. loolu lay nekk di uhilla daganaleef na lakum ñeel leen laylata siyaam guddi koor ar rafasu mooy lépp lu góor di ak jigéen waxante laak jonjonteeg ah fóonanteeg mm-hmm. lépp daal mm-hmm. lu góor gi seex ak jigéen mm-hmm. lu jëm ci mbiram sëy day tudd ar rafas ilaa nisaaikum jëm ci seen soxna yi da nga bu baax a baax na soxna yi libaasun ay koddaay lañu lakum pour yéen dañu mel ni ay yére ci yéen yu ngeen war sol waantum yéen itam libaasun ay koddaay ngeen lawun na ñeel leen ñoom lekk ak naan dong indi wu leen fii ndax bu bi am na seen kër yaay ak seen kër baay di ah yow itam ah lekk ak naan dong taxutoon nga takk takk ko ndax amul am na fi fekk na ko fi mhm. kon hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna mënu leen dem saa ñoom yéen itam mënu leen dem saa yéen ñoom mënu ñoo dem saa yéen suñu borom wax lii alimallahu sunu borom xam na annakum naka yéen kuntum nekkoon ngeen taxtaanuuna di wuruj di nax di war anfusakum mooy yéen a ngi doon def lu ma leen tere ci guddi weeru koor ngeen yaakaaroon ni yëguma ko waaye man borom bi yëg naa ko Seydina Omar nag moo ñëwee taxaw ci kanamu yonent bi am futu wax ko ñi ci des door di feeñ waaye ñëpp ngi doon bàyyi di jë di jënd glace bàyyi muy sedd ci suuf loolu la fa gaa yi <laughs> nekkee woon saxaaba yi nag ba yàlla ne ku annakum kuntum taqtuluuna anfusakum mm-hmm. ñëpp xaw a jaaxle mu ne aywa fa taaba aleykum mm-hmm. léegi nag pardonné naa leen baal naa leen mm-hmm. waafaa ankum ah baal naa leen ba tey mooy jéggal naa leen li ngeen doon def rek dégg nga léegi nag fal aana léegi li nga daggee tey nee na fa aana léegi nag gannaaw tey lii moo ci des baashiruhunna jonjoo leen ak ñoom wala loola ci tegu dama réer gisatuma ko de man lu moo tax may tendee fal la xamatu ay gis naa ko léegi nag baashiruhunna gerte leen ak ñoom wabtaxu ngeen sàkku maa kataba dogal na ko mm-hmm. allahu yàlla mm-hmm. lakum ñeel leen mm-hmm. la ca yàlla dogal ci doom ay ca ma def leen loolu maa leen ko jox dégg nga ndax jamono bi nga xam ne yéen a ngi jote yiw la la yàlla bindal su ngeen akolantee yiw fukk taxaw na nga tëddaaleeg moom mm-hmm. kooku taxaw na mm-hmm. kon foofu la fa nekk ci xeeti yiw mm-hmm. kenn xamul nu mu toll suñu borom moo ko def noonu ba keroog ngay sangu janaaba boo sangoo janaaba nag malaayka yi sax dañuy puukare ci yow yàlla na xool leen sama jaam bii ak guddi gi li muy sedd sedd xam nga fajar gi li muy sedd sedd yangu yeewu na sangu janaaba ngir janaaba boo xam nag mi ngi bàyyi koo ci soxna su boppam si de kon seede leen ko ne man jéggal naa ko xam nga nekk na ci suuf bépp kawar ba mm-hmm. moo tax ñuy bëgg booy sangu janaaba mm-hmm. na sa lépp matale mm-hmm. waaye nag loolu day fekk nga jëflante jëflante bu dagan waaye bu fekkee bu xaraam nag boobu doo ko am njéggal loolu doo ko jàpp kooku kay leneen ay am bu fekkee jéggal woo dégg nga waax aywa aay ji ba wàccee ñuy bëgg a wax xanaa benn waay bu sant bu mel ni baara la rek waa ji daal waaye saabu li alxuraan waxee ndax comme xamuñ xëdd gi fajar gi yem am na jàkk joo xam ne fii ku ciy baasewu fii ci fajar gi fii nga jàpp ne am nga koor amuloo dara nga jàpp ne am nga dara amuloo dara ci koor ndax jàkk ji bala moom salaatu ni ñuy julli bi bari yàlla xam na ko xam nga dañ lay julli ka lay julli ka lay julli fajar mm. six six heures te di resendar bi fi nekk nii resendar bi bu fekkee calendrier cinq heures cinq lan cinq heures six heures mooy deux mm-hmm. waaw presque six heures rek six heures noonu mm-hmm. man na damay gis ma xamante ne ba ci dégg waa ji naan salaatu xayru mina mu ne moom waay waa léegi ñooy baasee wu foofa fu ñu jëm ñooñu dañuy ndékki rek te pourtant am na ñuy baasee wu foofa di dafa déglu pour seen xëdd <laughs> man laaj naa ko maam Saïd mii laa ko laaj xaw ma bëri ki dem ma nekk nag jàkk ji may dégg fi moom ku ci baaxee yaa ngi ci musiba ah waaw boobu <laughs> boobu war nañoo topp kaa foofu moom gars yi war nañoo topp kaa foofu de seet seet jàkk ju mel noonu nag mm-hmm. nga xam ne day dem a dem dem te dañuy wax ne yeneen bi dafa jàngale ne mm-hmm. fi ngay noppee xëdd mm-hmm. ak fi ñuy salaatoo war nga fee mën a jàng juróom fukki aay yoo xam ne du gaaw ba ëpp du yeex ba ëpp kon fa ngay noppee ak fi ñuy salaatoo lu gàtt gàtt war na mat fukki minute fukki minute moom war na ko mën a man dégg nga ko bu baax waaye su dul loolu de ah yàlla de yàlla na yàlla comprendre waaye dooy na waar waaye waaye yàlla fu mel ni baara aay ji wàcc di leeral heure bi ñuy xëdd te la ñuy bàyyi xëdd waa ji ñàkk lu muy def rek baara ñàkk lu muy def rek jënd ñaari wëñ bu ñuul weex rawlante ba mu baax mm-hmm. takk nag ci tànk bii bu ñuul bi takk ci tànk bee bu weex bi mm-hmm. moom daal léeg mu tim bool bi rek mm-hmm. attaqué ba mu yàgg rek xool tànk yi ba xam nu wëñ ñi mel ah xam gu ma leen de rek accéléré waat <laughs> léeg mu ne ah bee dafa mel ni bu ñuul baa waaye léeragul de léeg mu ne ah bee bu weex baa waaye dafa mel ni léeragul de dem ba xam ne leen ñoom ñaar ba ba sànca ba së wécc wécc tàncar naan hmm. ñëw ne yeneen bi gàddu ñaari wuñ ji hmm. ah yii de moom balaa kenn ko jëfandikoo maa ko njëkk jëfandikoo hmm. yeneen bi nekk ko noo ko jëfandikoo mu nekk man daal damaa takk ci tànk bu weex bi beneen ma takk ci bu ñuul bi beneen ma takk ci bu ñuul bi léeg-léeg su ma barkeeloo ba mu yàgg rek xool wëñ yi ba xam naka la ba ma dem ba xàmmee leen xam ne bu ñuul bi moo nekk ci tànk càmmoñ bi bu weex bee nekk ci bu ndeyjoor bi ma ne ah alhamdulilah léegi moom aaya jii moom kenn jiitu mu ci jëfandikoo mm-hmm. yeneen naka nga dégg bu du feccam ginnaaw mm-hmm. ni nga def du noonu mm-hmm. yàlla waxul loolu de mooy soo ko déggee mooy su demee ba fajar xar ba weex-weex yi commencé génn ñuul ñuul yi commencé dem loolu lañ la wax te bañ a nekk fajaru kaasiba waaw fajaru kaasiba yim dana wax ne ne mooy fajar goo xam ne nga yaakaar ne fajar jot na ngir làmp yeeg yooyu day mel ni génn ci ligu sànni noonu rek Mm-hmm. Mm-hmm. loolee mm-hmm. la borom bi fàttali fi le mi ngi jàngale heure bu ñuy xëdd ak yooyu kulu lekk leen wasrabu ngeen naan guddi gi yëpp di lekk ka naan di lekk ka naan xatta yatabayyana dem ba leer lakum ñeel leen alxaytu buum nga wala wëñ al abyadu bu weex gi ko baax xam nga mu fajar rek fajar si mi nal xayiti mm-hmm. bàyyi ko ca buum nga wala wëñ ga mm-hmm. al asadi gu ñuul gi mm-hmm. maanaa ñuul ñuul bii dem weex weex bii ñëw nga nekk loolu ci bën heure mu moom fajar si laa wax kat min mi du minam lif ci daay la waaye euh, minam bayaan la laala moom fajar la xam nga min dafa bëri façon libtilaa yi am na tabaxit am na bayaan am na lépp nag yaa ngay xamee ca firi mm-hmm. min mooy firi lenn mm-hmm. da ngay xam ne jëlul lépp mm-hmm. tukkee da ngay xam ne fii la commencé laala moom nangam la nga xam ne minam bayaan la day leeram seetlu nga kon ñu dafa ji laala moom fajar sala di xotti ko su maati mu topp mottali leen asiyaama koor ga dàmbalee ci fajar ci fajar xare fi ñu salaatoo xayru menoog foofu ngeen di bañ a lekkee bañ a naan ilee lay lu jëm ba jant bu sox waaw ah, bu jant waxuñ ila layli nag mm-hmm. waxuñ ba ca guddi ga mm-hmm. déedéet ila layli foofu jëm ba jant bu so mm-hmm. fu jant sooyee rek jàkka yi noddu nañu nodduñu xamal ne timis jot na xamal ne it dog jot na machine bi su ne naag ne dog jot na ci leçon ndar bi dog bi mi ngi nekk vingt et un xam nga leçon yëpp toll la wuñu nag soo demoon Louga dala joxaat beneen beneen calendrier nga dem fee ñu joxaat beneen leçon yëpp noonu la demee tollu wuñ ci heure bi mm-hmm. loolu nga bàyyi mm-hmm. comme dara la nekk rek ñun lañ lijjanti mm-hmm. euh, boo duggee léeg-léeg gaa yi awaale yooyu ko ah baax na kon <laughs> la ma ci bëggoon teg du ma ko ci teg wala tubaasiruhunna bu leen jonjoo ak jigéen ñi bu leen jote ak ñoom te wantum bi moom yéen aakifuuna ngi way sax fil masaajidi ci jàkka yi mooy koor gi bu desee fukki fan ngay dee leen atikaaf foofu bu fa yóbbu àll soxna si di jotee moom wala bu ñu ci jàkk ji di dem ci kër ga nan da nga jotee ak moom day def fukki fan yooyu xanaa war nga kaa mën a muñ boo saa jotee moom rek itikaaf ba yàqu na tilka at yi ma fi doon tudd la ka daggee ci kutiba siyaamu yaa ngi am na kutiba aleykum siyaamu ba fii ma toll xududullaahi mooy farañkeer yàlla yi mooy fi leen yàlla yem loo rëddal leen ko kon jëfandikoo leen ko nii ma ko waxee fala taqrabuha bu leen jege frontière yi mooy fi ma yem yem leen fa bu leen ko jéem a jege ba koy jëlgati romb jëm ci leen déedéet kazalika naka nii borom bi leeralee lii moom yàlla naka nii mu leeralee lii lay leerale aayaati ay aayaam li naa si ñeel nit ñi laallahum ndax la ñoom yattaquuna ñu moytu lépp loo xaraam wala yattaquuna ñu moytu lépp loo xam ne daal da leen di dugal ci njëppiteg yàlla wala taakulu bu leen lekk kon alali jàmbur yi ñun lay waxantee wala taakulu bu leen lekk yéen jullit ñi amwaalakum seen alal kum seen diggante ngeen lekkee ko ci lekkin woo xam ne du lekkinu sariyaa da nga kaa këf da nga kaa sàcc da kaa wor da ndarwaale da ngaa njar mhm. xeetu tappale xeetu dóor yi mhm. bu ci lekkee dara dara dara dara mhm. mooy bil baatili ci ay neen ak i tappale fenn yëpp leen ci lekkee alal nger ak kori façon yooyu yëpp day dugg foofu ribaag yëpp bil baatili ci ay neen su ko defee te bu leen di sànni wante bihaa ci alal jooju ngeen yóbbu ko ilal xukkaam yi jëme ko ci procureur yi mooy attekat yi li taakulu pour nañu lekk fariixan gis ne waa ji am na alal nga teg diil yaag attekat ba wala yaag ka nga teg ak diil pour ngir mën lekk ci waa ji jaaduwul sariya daf kaa xaraamal yooyu yëpp ay xeeti tappale la